muy Tawfekh ju rëy kenn xamul fu mu yem. abonneel gaaw fii ci Tawfekh Production ngir vidéo bu ñu dugal rek nga mën see jot si saa si. kon mel ne Tawfekh Sëriñ Tuubaa rek am solo. bismillaahi rahmaani rahiim barkeb Sëriñ Tuubaa barkeb Seex Ahmadu Bamba barkeb Seexuna Abdurahmaan Bakke. fi sarxi wal maghribi wal bidaani wal jinni wa dajaali fi sarxi wal maxribi wal bidaani wal jinni wa dajaali wa sudaani fi sarxi wal maxribi wal bidaani wal jinni wa dajaali wa sudaani fi sarxi wal maxribi wal bidaani ayasamindillahu inda géewali yi iblisa isna daytuhu biyawali ayasamindillahu inda géewali yi iblisa isna inda géewali iblisa isna daytuhu biyawali nafa li xëyrillahu fi ndakaari nafa li xëyrillahu qablu fi ndari bi ahli badrinil usonin kadrin nafa li xëyrillahu fi ndakaaru kulla asani jarrahul makaaru alamani rahmanu fi safina بأنني قد مسر مدنا برأني الله لداك ناكري من كل جانب إلى المناكر أسبعني الله في كرم بسا قبل مبارسي وعني خلبسا دهني الريم عند داومي lahu bima arna an ta zaaw min yasarali mu naa la daa li mbër wali man xaada li maa xaaba an kulli wali li xaada ahla badrin al usuda man sansal waasi wal husuda yaquudu li aysu akunu llahu tabsira la ilaha illa لخير الله فيما ينبع ما ساء قلبي وأهل جنبا لله قد وصلت عند جلوى وسنني أما يجر بلوى كتابتي قبل لدى البور كفت حياتي يا المدون علمني العليم عند الصائرات مما يساء وكفاني كافرا لم يلهني عند بهور المغرقات داهم لخمر أو دواء فاسخا يسر للجميل عند المهلكات من سنني عن جالب المشركات عباد من لي كان عند واسعات xaade li kalkali i rida wasaat madali allan waaru inda sulumaat wasalimina man kafaani saddaman sahaadati inda ila ilahi li tëhërat inda sawil malaami lam yalhuni inda sawil xumoori سوى رداء باخ له أمور طهرني الله لدى أهل الكتاب من السقاوة ومن كل العتام أكرمني نسو الإدراك من خاد لي إليه بالإدراك ناجيته بيا نسير يا ولي كفيتني إبليس عند جيول نجدو يا نسير يا ولي كفيتني إبليس هند جول لم يبدو مثل المصطفى محمد سرا وجهرا في البراء يا سمد لم يبدو مثل المصطفى محمد سرا وجهرا في البراء يا سمد مد لنا الإسلام والكفر معها وبالنسيئة لكل سمها يقود بالسائر والباطن من أتاه لله في كل زمن خدمته عن العيوب أثبات والاستقامة وسبا لبان كون المصطفى رئيسا li kulli man qad fadiloo ruusa qul qaddamaahu fawqa kulli raqaba minu saaral kullu qurru manqab muhammadun misaaloo lam maam ahu la sabata anna rabbana lam yuridi mislaloo lo siadatu lohol alas ودل برأ البدي من خير جمال وسانو قدوسا خير كمان برأه البدي من خير جمال الكمال وسانو خدوسا خير كمال كون النبي المنتقى محمد خير الورى مختار عند سمك كون النبي المنتقى محمد خير الورى المختار عند سمك keroog dalay naawoo ca pencam lambaay tanaa danaa leen tàggalee ki laxasaay di bàcc ay gobar di feeñal dambu di boole dóor ak yow amul far jàmm danaa ba leen Seex Bamba ba ma rendi i murit yëpp ma nga naan ba mandi i Sëriñ màndi Mandi moo ko tontu booba ne ko da kàcc ñun ñii dañuy dem Touba fan la tey tekki sa ndombal tànk moo gën a yomb lii nga wax ñoo lànk adee ma Ahmadou Bamba xaadima rasulillahi sallallahu di ziare mbokki julli mbokki taalibe yëpp maam xaalim la Fallut numéro 2 ñu ngi leen di ziare bu baax di ziare mboolem waa seen bi te wax yàlla na suñu Tuubaa taxaw liggéey bi bi jeex rasulullah sallallahu alayhi wasallam di siyaare sama ñaaru waajur bu baax di leen sant di leen gërëm di siyaare mboolem fan sama famille bi jeex rasulullah du nuyu mboolem mbokk taalibe ak ku may bëggee maa ngi siyaar mbokk jullit ñoom ñëpp di siyaar waa seen bi ñi xam ne ñoo jàpp liggéey ba nga xam ne a taxaw fi di yëkkati bi jeex rasulullah sallallahu taala alayhi wasallam di siyaare sama mbokk jàng xës de yëpp di siyaare sama jëwriñ Serigne Palutine maa ngi koy baax di siyaare sama bopp man maa ngi siyaare sama bopp bu baax maa ngi siyaare sama bopp di siyaare sama bopp di siyaare sama bopp bu baax a baax baax di delloo siyaar bi lépp si Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul ki nga xam ne moo demoon sa géej ga waaye moo lépp bu doon toon moom tey màggal gi defe naa ne dina demee na waaye di siyaare Serigne Mountakha si Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul yàlla ne lim naal lim naal liggéeyal Serigne Touba Serigne Touba yàlla bàyyi ko fi mu liggéeyal ko ko ci ni mu ko bëggee di siyaare sama Serigne si Abdou Mbacké si Abdou Rahman Mbacké di siyaare mboolem mbokki taalibe bi Ibrahima Konté ñu ngi koy siyaar bu baax yàlla leen Serigne muy Tawfekh ju rëy kenn xamul fu mu yem. abonneel gaaw fii ci Tawfekh production ngir vidéo bu ñu dugal rek nga mën see jot si saa si. kon dafa mel ne Tawfekh Sëriñ Tuubaa rek am solo.